maa ngi leen di nuyu euh, di gërëm sama promotionnaire yi ma teg ci bopp organisation bi ñuy wax 2A CNQP mooy ndongo yi génne ci centre national de qualification professionnelle ci première année biñ ko sancee en deux mille euh, en quatre vingt tey ñu am. jaar-jaar bu bu bu bu bu bu bu bu mat ci wàllu entreprise ba trente ans après ñu dellu siwaat bëgg a teg benn kuréel boo xam ni dafay jàppale état du Sénégal ci dugal ndaw yi ci biir entreprise yi donc loolu moo sabab suñu sanc bi ñu sanc muy 2ACNQP ñu kontaan ci trop ma ci remercier ma ci gërëm bu baax sama sama promotionnaire yi nga am confiance ci man jiital ma ci ci liggéey boobu ma leen di wax tamit dinaa ci xat suma tànk tubéy pour que liggéey boobu mën a mën a jëm kanam te dinañ seet ñëpp ñi nga xamante ni mën nañ jàppale ci liggéey boobu ñu ñu ñu saytu leen waxtaan ak ñoom fexe ba ñu mën ñu jàppale ci liggéey boobu ba li ñu yéene bi ñu am ci suñu réew ñu mën ko matal ci ci kàttanu suñu suñu borom. gannaaw liggéey waaw liggéey boobu dañ ko dañ ko njëkk euh, jubal ci wàllu euh, njàng mi ci wàllu lépp li nga xamante ni mën na dooleel njàng mi mën na dooleel tamit. Euh, lii yóbbu euh, ñi jàng ba am seen seen lijaasa li leen mën a yóbbu ci biir euh, bërëbu liggéey kaay donc ñun ci loolu la ñuy gën a gën a gëstu ci loolu la ñuy gën a liggéey pour mën a mën a mën a yombal loolu ci suñu biir tamit puisque promotion yu yu yu yu bari la parce que 83 ba tey ñu bari jaar nañu seen CNQP ñu fas yéene Euh, xool euh, mbooloo moom yëpp xool nan lañ leen mën a jàppale ñenn ñi ci wàllu euh, social ñenn ñi ci wàllu reconversion mooy ñi nga xam te xëy na tey seen jàng ba ñu jaaree seen CUPE domaine bii la waaye tey bëgg nañu dem ci beneen domaine léegi ñu jéem a seet nu ñu leen di mën a tàggatewaat encore ci ay programmes yu gàtt. jëm leen mën a dugalaat ci yeneen domaine te nañ seet bépp mbootaay bépp euh, euh, ñëpp ñu ñu mën a jàppale ci mission boobu ñu jëm leen euh, proposer loolu ba ñu mën ci jàppale ba ñu mën a réussir suñu yéene ci ci ci wàllu boobu. waaw mission waaw promotion ñun ba ñuy njëkk a ñëw euh, CNQP bu sama euh, lim bi mu ngi toll woon ci quatre-vingt-seize quatre vingt tey suñu borom bi def li gën am na ñu ciy wàññeeku bariwuñu ñu leen di ñaanal waaye tey association bi ñu ngi ko tëkk ci wàllu fan euh, ñeent fukk. entre fanweer ñeen fukk jëm ñeent fukk parce que am na ñoo xamante ni euh, fas yéene nañu ci bés yi di ñëw fan yi di ñëw ñu dugg ci biir association bi donc loolu muy lim de lim bu bu baax bu takku ci kaw première promotion bi di am yaakaar men ci promotion yi ci tegu ñu ñëw fekk si ñu ci liggéey boobu ba ñu mën a ànd yéene bi ñu am suñu réew ñu mën ko matal. itam si wàllu liggéey boobu noonu fas ngeen yéene itam lëkkaloo ne waaw fas yéene nañu def loolu bu baax mooy nekk suñu tànk yu njëkk suñu tànk yu njëkk ñu ngi doog a sanc euh, bureau bi suñu tànk yu njëkk mooy jéema fexe ba mm, jokkoo ak euh, autorité njiitu seen wan leen wax leen lañu ñu bëgg a def wan leen ko ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci kayit ba ñu xam natt xam liñ bëgg a def ñoom ñu jéem a essayer ànd ci liggéey boobu teg ko ci li nga xamante ni dana mën a yóbbu suñu jëmale suñu réew kanam njort naa ni bu ñu xamee ñun li nga xamante ni moo ñu tax a jóg. danañ ñu jàppale ci ci ci mission boobu parce que nañ ñu jàppale parce que nañ xam ne ñun dañ ñëw pour jàppale leen te suñu warugar la parce que ñun ba ñuy ñëw seen CNQP expérience moo ñu fa indi état dañ ko accompagner banque mondiale bureau international du moo ñëw def expérience am ne ah dafay jël ay ndaw tàggat leen ci formation alternance mooy di jàng école di dem entreprise loolu lañ def ci diiru ñetti at ba yàlla def ñu génn ba dugg entreprise commencé liggéey ba am jaar-jaar bi ñu am ci ñun bi ñu am loolu nag ñu fas yéene ci dooleel seen CNQP liggéey ci seen CNQP ba mm, li ñu en tout cas ñun fa ñu jaar ñu fexe ba ndaw yi nga xamante ni ña nga fa ñu mën fa jaar ba ëllëg mu mën a nekk njariñ pour suñu suñu réew